nu gëlëmal askan wi ci di invoquer ay dispositions yoo xam ni wala ay concept yoo xam ni dëppoowul ak li xam ni moom la kàggu yi boole ëmb li wóor mooy appel à l'insurrection kenn mënu koo toppee maam kii ñuy wax maam le président Ousmane Sonko waaye ndey bu fekkoon sax dañuy àttee ko ci dëgg kon ñu waaw ndax réew mi kenn ku ne xam na ni réew mi ndéew mu maanaam am jafe-jafe la ci wàllu yoon li ko sabab mooy wàllu yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay yaakaar naa ñu toog fii ñëpp mën na noo seede ni kii ñu wax maanaam Cheikh Tidiane sec yaakaar naa ci parti bu maanaam parti social ci la bokk wax na fii ci réewum Sénégal ñëpp di dégg wax joo xam ne nii loolu bu ñu doon définir maam li ñuy wax appel à l'insurrection foofee rek la ñuy sukkandiku waaye le président de l'association des maires du Sénégal monsieur Ba mais ñoo na fii wax ni candidature président Macky Sall bii maanaam bu fekkee mënul am le pays sera à à sang mais jaakaar naa bu ñu dee wax au du point de vue conceptuel maanaam appel à l'insurrection foofu lan waroon su kon ana lan moo sabab ñi xam ne dañoo féete ci nguur gi bu nu waxee wax yu ni mel ñooñee ñu bàyyi leen kenn du leen topp dara ki ñi xam ni dañoo fare ci Ousmane sonk ak jëmmi boppam moom bu nu waxee ci lu nuru lu ni mel wala sax loo xam dëppoowul ak lu ni mel maam ñu arrêté leen téye leen maanaam jëbb leen wàllu yoon loolu liñ ci bëgg leeral mooy askanu Sénégal lañ bëgg a xamal ni leen réew mi xam ni moom la ñuy attee maam dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey te loolu maanaam procureur de la république moo ko wane démb ci kàddoom ñu bañ ñu fas yéene ko maanaam leeral ci ci askan bi loolu mooy ñaareel bu bu bi bu loolu wéyee ana lan moo nu dajale aussi mooy kenn ku ne xam na ni Ousmane Sonko incha allah suba la war a taxaw jàmmaaru jàkkaarloo ak ki ñuy wax maanaam le doyen des juges may leeral Sénégalais yi ci loo xam ni kenn du ko dindi infraction yi xam ni ay crime la ñu maam viser ko jëmee ko ci moom te xam ni amul benn cëslaay ci wàllu maanaam lu mën a téye lu mën a téye ci wàllu maanaam élément factuel kenn ci juriste fi toog yëpp xam na ni amul benn sukkandikuwaay boo xam ni mën nañ ci sukkandiku ngir articuler une quelconque crime contre Ousmane Sonko mais ma ni loolu xam ni wax nañ ko yëpp maanaam jëmee ko ci Ousmane Sonko mayul benn yoon juge bi juge bi xam moo ko war a diglu maanaam mu bàyyi ko mu ñibbi këram bu fekkee yoon rek ci la ñuy àttee ko li muy firi mooy jamono bu taxawee ak juge bi juge bi dina def application des dispositions des articles 129 139 du code effectivement donc de procédure pénale loolu nag maanaam liñ ci jublu mooy xamal ni askanu Sénégal jot na sëkk ñi war a wax maanaam wax ñi war a taxaw taxaw ngir ñu moytu dugal sunu réew mi ci guuta ci loo xam ne nii tegul ci benn sukkandikuwaay réew mi ku ma am ndey moo fi am ak ku ma amu ndey man mii di wax ak yow say xam ma sax ndax bu ma génnee du ma arrêté ndax man ku weex dungu laa jamono bu ma yëkkatee addu ah, jamono bu ma yëkkatee kàddu maanaam wax lu jëm ci Ousmane Sonko ak ci lu koy aar sukkandiku wala fi ñoo léeb wax ni ku ndëmin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw waa maanaam Pastef ak ñi xam ni dañuy taxawu dëgg ñoo yey di wax ñoo yey di alerter ndax fa nu jëm du fa te bu nu bàyyee ba nu dugg foofa musiba mën naa àgg ci réew mi lii lan bëggoon a leeral askanu Sénégal lu ci rafet maanaam yàlla la lu ci ñaaw sunug matik doomu aadama moo waaye li seen yéene maanaam mooy leeral li xam ni mooy moo mooy actualité fii ci réew mi may dellu di tuubaat ak a jéggulu sama kilifa yi xam ni ñoo fi ne woo kóoluteef tax ñu jox ma kàddu ngir leeral askan wi ci wàll bi xam ni moo nu fi dajale wasalaatu wasalaam bien bien dit félicitations

Merci au doyen Ousseynou Fall qui, qui a bien voulu Abdou Naar wax na ko leeral na ko que ginnaaw bi ñu jàppee euh, Ousmane Sonko peine bi nga xamante ne dañ ko doon toppee ci mbirum euh, viol euh, corruption de mineur bi deux ans yi amatul parce que yoon loolu la wax corruption de la jeunesse amatul li ma wax ci olof également mooy euh, samay naataango wax nañ ko question bi barricades yi euh, barricades yi également euh, c'était des barricades yoo xam ne yoon nanguwu ko parce que am na benn ministre bu ñu dégg également mu ne c'est une mesure administrative waaye xam nga mesure administrative du du du loo xam ne da nga koy da nga koy bind da koy bind pour motiver ko pour permettre ki nga xam ne da nga ko koy teg moom mu dem ci justice mais mesure administrative mënul restreindre de libertés pendant cinquante cinq jours loolu amul d'ailleurs autorité bi ko dogal sax yoon dafa teg ci loxoom ci ci ndoddam ay ay ay daan séquestration la et séquestration crime la je pense que maître Etienne yoon wax na ko li mu leen leeralul mooy crime boobu pendant dix ans mën nañu ko poursuivre parce que fait